mbokki jullit yi mbokki taalibe yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu nuyu jullit ak mbokku jullitam di leen nuyu nuyu taalibe mbokkum taalibeem Dakar ak Touba sore na waaye dafa am lu yéeme muy sëñ Touba sunu borom daf ko defal loo xam ne nit ku ne da caa di def ab settantal di ko seetlu fi ne léegi nga gis nit mu zaayire lool waaye boo lambee xolam sëñ nga ci fekk te mën naa zaayire lool nag. sëñ Touba nekkul ci comportement mbubb ak yooyu amul solo yooyu ndax da ngay gis ku sol xaftaan bu rëy maxtu mu rëy te def saay-saay caay-caay moom ajuwul ci soli yére yooyu kenn na mënatu ci ndax nit ñi ndax yeew yeewu ci nax ci sëñ yooyu waaye xol moom la yàlla di xol te xol bu yàlla dogal mu texe it xol booba dëgg dëgmal na sëñ Tuubaa waxal na boppam ne qulubu jumlat alladina aflaxu liyatawajjaha wa rabbil muslih sëriñ Tuubaa nee na mboolem xol yi way texe yépp dëgmal nañ ma kon ku ku ku làmb ci xolam yépp ne ci biir xolam ak sopp sopp Cheikhul Khadim mi ngi ci bokk na ci sant gi gi ko war ci ma di ko sant yàlla bokk na ci it woote gi war di woote di sant yàlla ci tawfiix jooju ko suñ borom defal ndax bëgg cee bokk taxul nga bokk ci bañ cee bokk it téewul nga bokk ci sëñ bay tànn rek kum tànn boolele ci ñoñam nag war nga sant yàlla te mboolem taalibe buy wuyoo sëñ Tuubaa sëñ bi négul ba nga ba nga gane jamono ñëw àdduna rek mu doon laa ci ñooñu dafa waxoon ne suñ borom dafa mas a teg àndaari ruux sama digganteeg moom xam lim ba xamal ma lim ba na ma ñooñooy sa ñoñ ku ci bokk bu mu génn ci bokkul bu mu ci ku ci bokkul bu mu ci tàbbi te booba jëmm yi ay waxe ki sa la kon ruux yooyu ruux bu ca bu ca yàlla boole ko Serigne Touba loola war na caa sant yàlla bu baax a baax bu la yàlla dimbalee ba tàbbal ci sa benn tomb buy tegtale ne yow mii bëgg nga sëñ bi loolu ak sant yàlla la sant yàlla boo amul ab tàmbali amul ab yem. la mel na mag doon wax ne na ngeen sant yàlla yéen ci jagleel gi mu leen jagleel ba ngeen bokk ci ñooñ seen Tuubaa kon na ngeen yàlla seen borom ay ndaw nag bu ñu jógee ak ni jamono jaxasoo daw jëm ci sëriñ bi nañu leen soññi ñaanal leen so soññ gi mooy ku bëgg jëm ci sëriñ bi tey sàkku ngërëmam dafa am aw doxin woo woo ngërëmu sëñ bi dafa war a am gëm-gëm bu nekk ci yow ndax Sëriñ Tuubaa lenn ci àdduna mosu ko yitteel mosu ca mosu ca mosu ko am soxla genn bëgg rek laa moom te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ak yëngoo bi ak dalal bépp ci ci lenn la jëmoon mu yonent bi salallahu alayhi wa sallam ba ba ni yonent bi salallahu alayhi wa sallam jiitoo mboolem anbiya yi ak mursalun yi awliya yi nuqaba yeeg yépp noonu la leen sëñ tubaa jiitoo laqad faaqa bamba awliya zamanihi كما faaqa كل الأنبياء أفضل البشر ku wóor ne rasulullahi sallallahu alayhi wa jiitu ci yonent yi man nga gëm ci ne Serigne Touba moom la yàlla tànn jiital ko ci mbooleem ay xejjam ak i yam tànn waaye loolu da ci ak coono boo xam daa waxal boppam ne ndax bantuku maana la kaddin bada lii xam naa xamaa dal moo ko dal jaajëf Mbacke jërëjëf Serigne Touba nag maa ngi leen di yëgal yéen nit ñi ngeen xam ne lii ma am li ma ko daan am coono yi gën a metti gën a tar yooyu laa jànkonteel door ko am loolu day na ci tey tey jii ñu nekk rek ñu ngi màggal ci dëkk bii ñetti guddi yu fi sëñ Tuubaa fanaanoo bu subaa nu màggal julli gum julli woon ci géej gi moo ne sëñ Tuubaa ci Sénégal moom rek nekk fi woon waaye kenn kun fi màggalal ñetti guddi amut waxuma julli géej moom loolu sax kenn yabaatewul ba di ko def la ko jiitu it mooy ñaari rakkay sunna ya mu julli woon ca biroon daal barki démb lañ ko màggal 5 septembre kon béréb bu béréb bu lislaam masa bëgg a sëngéeme Serigne Touba siggil na ko ba lislaam moom boppam am istiqlaal muy indépendance boo xam ne lislaam am na ko te bu ko lislaam amee grâce à Cheikh Ahmadou Bamba béréb boo xam ne dañ fee indi woon jëmm ngir tuuraankel ko ak xatal ko tey booy dugg ci mbedd Ndakaar yi fu ne ña fay baas di yëkkati xasiida di nettali baaxu Serigne Touba bi te bañ ko fi indi lan lan lañ ci jublu woon li lay xamee ne yàlla nekkal ko dafa am solo mooy yàlla dafa bokkul ak doomu aadama laa yaxiibu wala yanaamu yàlla du du faddu te du nelaw Serigne Touba biñ koy indi fii dix huit dix neuf vingt septembre. di ko fanaanal ci néeg boo xam ne ay xottu bitee la ca nekk ak i ràbbu ak la gën a bon ci ay xet ñu tabal ko ci boo gëstoo sëñ Tuubaa jépp doo ci dégg benn bés bu bu tax mu wax ne bu ma fàttalikoo laa fa daj danaa bëgg a jihaad lu dul Ndakaar fekk fii rek nga déggee mu wax ne ida dakartu dalika al mabita wa dalika al wa thubuta farat ila al jihaadi armaax nafsi walakin dabba anil ma bu ma fàttalikoo fanaan gama fa fanaan fàttaliku góornóor bi joxe woon ndigal loolu ma fanaan fa samam xel day daal di jóg jëm ci bëgg fetal jihaad waaye yonent bi sallallahu alayhi mooy ki ma tere ba tax jihaatuma ak tubaab yi kon metti na lu jaral sëñ jubaa fàttaliku loolu ba tax mu wax ko mu demoon ba kin andi woon fi seet nekk selil bu xat ñu tàbbal ko ca tey bokk na ci ñi fi ëpp ay daara bokk ci ñi fi gën a rëy jumaa fa mbooloo doon taxaw di wax ne du fi am tey ñooña ñoo wéetal Serigne Touba saxal ne Serigne Touba kenn la gis nga naafiq ba doon wër ñi ko gën a def ci àdduna Sénégal la ñuy dëkk rawatina ñi ñu ciy tudde borom yi xam-xam lamb ji ki ci dàq bëree roi des arènes lañ koy tuddee football bi ki ci dàq football meilleur joueur lañ lenn lu nekk ka ca jiitu danañ la wutalu tur wuy mandargaal ne yaa raw lu ne rek wutal nañ ko njiit Sénégal gii diine la puukarewoo en 1995 xam ngeen ne fii fi senegal kenn du noddu ci jàkk di ko jëmale ko la daloon Makka ak Madina daloon na Sénégal ba ci Ndar jii bërki dem rek collège yaa ngi dañuy fëgg ngeen noddu kenn ngi mënut a wax ca kaw ngeen tubaab Serigne Touba loo ko tubaab yi defal def leen loo xam ne kenn ku mës a féeroon ku am loolu nag loo naw naw sa loo bëgg-bëgg sa maam lu mu la neex neex boo nee daje nag tubaab bu tukku san sangam lañ cay topp mooy benn